foofu waxtu wa daa jot jotati jotal waxtu xibaar yi ci kàllaamay kocc ci leeru jamono ñu nuyooti leen bu baax yéen ñi sopp safoo saxoo taataanay xibaar fii ci Walf TV télé bi lambooy xar baax te koy wasaari ci adduna a fës ci bopp yi bokk ci uh, bis ni tey ñu faatoon ki nga xam ne nii uh, moo di Mamadou Diop ca daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Dakar boobu ak léegi mu def fukki at ak juróom-benn uh, nga xam ne nag ay nawleem lañu di jàngaan nekk foofule ca daara ju kawe ja wàcce ay kaamil ñaanal ko waaye nag la nga xam ne nii wax nañ ko mooy li ñu bëgg mooy jàmm nag des ca dara ju kawe joojule mu bokkit li gën a fes ci bopp xibaar yi liggéeykat ya nekk ca bërëbu fajukaay bi ca HLM ñoom nag li nga xam ne nii wax nañ ko mooy fas nañ yéene bu juróom-ñetti waxtu buróom juróom-ñetti fan jotee ci weeru janvier dootuñ fasta xànc ak morom ma ñuy laaj mooy ñu jox leen seen ñaari weer nag daal leen di yóbbuwaat ca mairie bu Ndakaaru ñu tënku fa ndax nag lépp leen dal rek acte 3 de la décentralisation moo leen ko yóbbee mu bokkit li gën a fes ci bopp xibaar yi fële ca kër Samba Lawbe ba tey jafe-jafe di am ca diggante waa dëkk ba ak kii di Cheikh Béthio ah, ca njiitu cantaakun yi ñu jàpp ne nag lu jit njàkk seen jaraaf ja di maire ba mooy njàkk ah, maire Malicounda ndax moom moo ànd ak ki nga xam ne nii moo di ah, Cheikh Béthio ngir muy man di teg suuf ci seen i mu bokki di gën a fës ci bopp xibaar yi ñi nga xam ne nag kan bi jeex na suñu gaynde yi ñibbisi waaye bërëb ba nga xam ne nii mooy bërëbu dalukaay ba jëwriñ ji jiite tàggat yaram bi fii ci Sénégal daloon ak ñamu àndaloon ñu ñibbisi nag daal di yoreel ba kappar ki nga xam ne nii moom moom bërëb boobule ñu xayma ko mu toll ci ay millions yu bari ki nga xam ne nag moo doxoon ci diggante bi boole leen nag borom bërëb ba ah, àdduna ci micro Cheikh Tidiane Gomis lii muy li gën a fës ci bopp xibaar yi ah, suñu ko faram-fàccee toftoor ci xibaar yi biti réew yi mu daal di buur ñu fasalante neskis ñu tàbbi ci faram gi bisimila adduna wërngal euh, képp ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi fanweeri fan ak benn ci atum ñaari ju nekk benn fanweeri fan ak benn euh, ci weeru janvier ci atum ñaari ju nekk fukk juróom-ñaar euh, boobu léegi mu def fukki ak juróom-benn ñu ba ñu boomee ki nga xam ne nii moo di Mamadou jot ca dara ju kawe yi di université Cheikh Anta bu Dakar jàngaan ya fa nekk nag tey doon ko fàttaliku wàcce ay kaamil ñaanal ko waaye la xam ne nii bëgg nañ ko mooy jàmm des ca daara ju kawe jooju leen ndax nag bërëbu sàkkukaayu xam-xam la ñu teewlu seen i kàddu nga doon étudiant ñëw di jàng si xam-xam ñëw fi ngay jàngee ñu ngi la fay gis ay violence boobaa du ngay gis pas mal de trucs yoo xamante ni mosoo ko gis nga ñëw ba université di ko loolu moom dafa metti quoi. fii nii des fois daf gars yi dañ ciy dund dund bu metti te affaire comme Balla Gaye li ko fi dal nii ak tout récemment li dara suñu. Basiru loolu vraiment dafay nekk loo xamante ne waratu fee am. waaw tamit may lancé tamit appel sama morom étudiant yëpp ñu. fexe jubal daal bañ genre waaw fexe daal ba violence bañ fi amati. étudiants yi dañoo maar ci loolu dañu sonn ci loolu étudiants yi boo xoolee ci ginnaaw t-shirt yi li ñu ci bind mooy bëggatuñ fi gis violence ñun ñëpp jóg taxaw pour université bu am jàmm donc je crois que suñu message tamit également percevoir nañ ko comme ni mu waree. en tout cas daal jàmm lañ bëgg ci espace bi bëgguñu policiers yi di dugg ci français universitaires yi waruñu mettre les étudiants dans de bonnes conditions pour ñu mën a jàng. ñu rayoon également euh, Bassirou Faye ñu ko rayoon boobu maa ngi doog a ñëw université maa ngi nekkoon première année ñu ngi ko rayoon fële en face de nous pavillon D foofu lañ ko rayoon un jeudi du 14 août 2014 boobu lañ ko rayoon te dañu bëgg genre crime yooyu noonu jeex fi bu mu fi amati ñu am ñëpp. kaddu yooyu ñu nangu ko ba ñu doon ñaanal ki nga xam ne nii moo di euh, moo di euh, Balla Gaye ma ñu faatoon ca daara ju kawe ja ñaar fukki fan ak benn ci weeru euh, janvier atum ñaari ju nekk benn boobu léegi nag mu def fukki at ak juróom-benn jàll ci beneen xibaar mu soxal fajkat yi nekk ca bërëbu fajukaay bi ci HLM li nga xam ne nag bëgg nañ ko mu jox leen seen ñaari weeri payoor ba noppi nag daal di leen di delloo ca meri Ndakaaru ba ñu tënk woon ndax lépp leen dal rek acte droit de la décentralisation moo leen ko yóbbee te nag li nga xam ne nii moo di seen payoor bu ñu ko joxul juróom ñetti fan ci weeru janvier dootuñu faste xàncak morom ma soxna Fatimata Sëy ba léegi seen dara leeragul ñi nga xam ni ñoom ñooy blouse blanche yi mer la ñu def jëmalee ko ci njiit yi la ñu bëgg mooy ñu daal leen fay seeni koppar. tey moom li ëpp dafa tuuru parce que on est au mois de janvier fin janvier je dirais parce que tey le janvier on n'a pas perçu nos salaires du mois de décembre jusqu'à présent bon jéem nañu dem nag laajte wax gëstu amuñu mairie HLM la nu nekk dem nañu ñoom la nu mun a adressé wu dem nañu adressé wu si ñoom jéem nañu gis maire jéem nañu gis secrétaire am amuñu dara lu nu leer. di ay waajur yor seen i njaboot jamono ji nag seen métit bi nga xam te ni ñu ngi koy jànkonteel seen liggéey ay atangi nii ñu ngi koy naqarlu te loolee yëpp nag ñu ngi ko wekk ci ndodd ak acte trois bu décentralisation. fas yéeneew nu def dara lu ñaaw pour population bi fas yéeneew nu def dara population bi sunu population lan ko defal sunu bopp lan ko defal sunu jabar lan ko def bu doon suñu sagalo mu delloonu fa nu nekkoon muy ville de Dakar loolu tamit bu doon suñu sago tamit retard de salaire yii nu dimbali nu si nu dimbali nu si nu yërëm nu ngir yàlla ak yonent ba comme nag moom maire maire la ñuy ñaan ngir yàlla ak yonent ba moom rek la ñuy ñaan dañ koy ñaan ngir yàlla si mère de famille yi ñu doon ak père de famille yi ñu doon mu dimbalinu infirmier yi nga xam ne ni nag jamono ji dañoo taxaw temm ngir ñu fay leen na seen ay koppar nee nañu buñ leen ko defalul ay fan yu néew dinañu dakkal lépp loo xamante ni liggéey la. lancé appel nag maire HLM ak maire Grand Yoff fii rek le huit bu dee feeñu salaire yi ñu bànk suñu loxo dootuñu liggéey tant que feeñu salaire ñu xeex. jërëjëf soxna Fatimata Sey ci tëngeej goxaan bi di guy murit foofule nag ñi nga xam ne nii ñoo fa dëkkee yëkkati nañu ay kàddu yu ñagas ak kaddu naqar jëmale ci seen ci seen jaraaf ja di albendo yi mi maire ba ñu yàpp ne nag moom dafa foofu dafa sooke ay jafe-jafe yoo xam ne nii ci wàllu alam gi la ko indi yëpp nag dafa bëggoon a tabax foofu rek benn këram ki di Fatou Seck moo addu ci seenu tur ci micro Najib Sagnan jafe-jafe yi am fii mooy ndox maa ngi suñu biiri kër suñu kër yi fi mu ne si teg na technopole la tegu ndox mi ñeent fukki at la am fii ma soog fee taxu man bu ma fi taxu am naa fi ñaar fukki at ak ñaar sama kër a ngi nii waaye damaa génn luye ji ñaari ati yàlla ndox mi fu muy jege waa dëkk bi da leen ubbil bi ne leen di leen si tuur ñëpp léegi alba ñëw ñaari kër yi la fi am kër gi ak kër gi mu taxal ndox mi fii si suñuy kër boo duggee sama biir kër bu ngeen paree ngeen dugg si biir kër gi ndox maa ngi fi ma génn luye ji ñaari ati yàlla ma génn lu yëg nun ñëpp mu rey nu ba nu dee lii nu koy noowi boo duggee si kër bii kër gi yuul yaa ngi fi weñ yaa ngi fi bâtiment baa ngi daanu kër gu day nii ma am ka ah. albendooy ndar ma kaa yàqal mu rey ma sax moo ma ko gën a li may sàkku Macky Sall dimbali ma ministre bi dimbali ma wala ma génn senegal ndax lii mënu ma kaa nangu jërëjëf Najib Sagna ginnaaw nag bi ñu yëkkatee kàddu yooyu lay jëmale ci euh, jaraaf ji di albindooy ñi nga xam ne nag ñoo di njabootam ak ay jegeñaaleem tontu nañu yëkkati ay kàddu wax ne euh, ñi nga xam ne nii dañuy wax ñoom ñëpp mbir mi laalu leen ñenn rek la ci laal te ñu ci bari sax euh, la ko indi mooy dafa am ñoo xam ne dañuy jël ndox yu bon di ko tuur ci mbedd mi Papis Gueye lañ ciy teewlu ci micro Najib mu ngi taxaw ci quartier bi di wax te loolu nga xamante ni moom lay wax du dara loo xamante ni am na ci ñun population Colobane Nord ñun ñëpp ñoo moti ñoo ñoo mobilisé wu woon dem woo monsieur le maire pour que mu ñëw saafaraal ñu problème boobu nga xamante ni moo am foofu noonu dex la goo xamante ni vingt ans oto mënu fa jaar ba monsieur le maire ñëw taxaw def déployé foofu ay moyens yu bari parce que foofu noonu doomu aadama mënu foon jaar bi maire defaree foofu ndox mi di ndox mi di versé foofu ñoom ñuy profité di vider seen i foofu noonu moo tax mu moo tax foofu mel noonu li nga xamante ni mooy am duñ ko nangu waa quartier bi ci boppam ñëpp mobilisé wu nañ li nga xamante ni moom la ñuy versé foofu à partir de maintenant dinañ ko dindi parce que fépp foo xamante ni waroon nañ fa dem dem nañ fa moom ci boppam li nga xamante ni moom lay wax tant que arrêté wul foosam boobu nga xamante ni moom lay viré foofu noonu foofu mënul bañ a mel noonu day bàyyi ba guddi mu jël moto pompam branché ko foofu di ko vidé foofu ñaari kër yi nga xamante ni ñoo nekk foofu noonu chaque jour bu guddi jotee seen seen i fosse foofu lañ koy vidé ay moto pompe lañ yor moom nag mu ngi wax naan foofu noonu maire moom moo ko def loolu maire defu ko lool population bi ñoom ñoo soxla woon loolu ñun nag ñun ñooy jëlal suñu bopp en garde dina arrêté li nga xamante ni moom lay vidé foofu bu ko wu wala ñun dinañ ko suñu bopp fépp foo xamante ni war nañ fa dem dinañ fa dem jëf Najib Sagna ñu dem ca kër Sambalaw foofu le nag jafe-jafe yi ma ngay wéy ci diggante waa dëkk ba ak ki nga xam ne nii ah, mooy njiitu cantaakun yi di Cheikh Béthio ñi nga xam ne dañoo ñi dëkk foofu ca kër Sambalaw li ñu wax mooy ah, kii di jaraafu Malicounda di maire ba lu jit njaak mooy njaak ndax moom moo ànd ak kii di Cheikh Béthio ah, ngir nag muy man di teg yoxo ci seeni suuf te loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba Cheikhno Daf diggante askan wi yeewoo ci diiwaanu kër Sambalaw be ak njiitalug cantakun yi dëkkandoo a ra taxagul ba tey li xaw mooy su digganteeg euh, Mbecco donc problème bu bëri bay xaw xew na fi si problème euh, dëkk kër Sambalaw ba dafa ñëw rek équipé dëkk bi jaay doole def lu ko neex mu ngi jël ay kër di ay ay clôture di di ko clôturer di ko def lu ko neex délibération la ñu jox hmm. waaw si jamono lañ lañ amee kayitu ki suuf si ñun dañu ko jox ñu am ay kayit yu leer nañ parce que kayit yu leer weesu ñu jox la délibération depuis jamonoy Senghor ba Abdou Diouf ñëw bàyyi ko fi Ablaye Wade ñëw ànd ak Cheikh Béthio jaxase suuf si parce que moo ko moom moom moo ne Cheikh Béthio moo ne Ablaye Wade moo ko ko jox. Macky Sall ñëw na aussi tamit ba tey la même chose. ñoom askan wi jël nañu baaraamu tuuma nag joxoñ maire bu Malicounda ne dafa lëkkaloo ak njiitalu cantakun yi. ngir caxat caxatee seeni suuf. bind nañ ko lettre wax nañ ko lan moo fi nekk situation dëkk bi ñëw na def recensement ba léegi waxu si dara mu ngi toog di ñu seetaan. dañuy bàyyi nag ba ba bàyyi nit reyante ñu ñu doog a te du ko jar. recensé nañ tout mais ba léegi ñoom waxuñu tooy na wala wow na ñu ngi toog di ñu seetaan te saa yu amee jafe-jafe dañ dañuy dem déet ñoom ci wax nañ mais ñoom ñu ngi ñuy seetaan kenn mu musuñoo wax lii la wala leneen. ñoom askan wi teg nañ ci woo nguur gi. ñi nekk ci pencum ndaw réew mi ak ñuy yëngatu ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama ngir ñu wax ci mbir mi balay beneen musiba di fa xew. le 14 lañ door suñu suñ benn xale foofu ba gaañu si si si problème terrain terrain te xamante ne sëñ bi moom ko mu ne moom moo ko moom. dégg nga ba gendarme gendarme lañ lañ mujjee mu ñëw interprète sapeur pompier moom mujjee jël xale bi yow ba léegi monsieur le maire fi tàngam sax xool loolu naka la demee xam nga loolu rafetul jël na lu ñu moom. def na ko lu ko neex am na alalam mu ngi tabax sa gu guddeeg bëccëg mu ngi tabax te lu muy tabax kenn dëkku fa collecte yi mu def nag yooyu collecte yi lañ lañ soxla na ko baax amul droit muy collecte dëkku jàmbur amul benn kay buy firnde wala moo ko moo amu ko lu nekk mën na see xew bu dee ñun kenn dégg ñu wax ne kenn faa lu nekk lu nekk mën na parce que commencé naa xew dem nañ si terrain boobu xeex nañ foofu jàppante ba gaañee kenn te te duñ ko bàyyi muy waa Yaana Maar waa Rado Alioune Tine personnellement na ñëw dox ci wax ci député yi dégg nañ ko maître El Hadj Diouf nañ ci wax ñu ngi koy woo na ci wax. ginnaaw bi ñu fësalee maire bu ñu guux ñoom askan wi yeewoo ci diwaanu Kër Samba Lawbe nee nañu noppi nañu tam jàmmaarloo ak njiitalu cantakun yi ngir jotaat ci seeni suuf. Mbuur Thierno Daaf rajo jërëjëf sëñ Thierno Daaf ñu des foofee ca Mbour ginnaaw nag biñ ko tuumalee moom jaraaf fi mbuur di maire ba yëkkati na ay kàddoom tontu di wax de ñooñu nga xam ne dañuy wax ne ay sëriñ lañu duñu lenn lu dul ay politique kat yoo xam ne seen gafakay bopp képp leen yitteel waaye nag jixi jaaxa ji ñu bëgg indi ci xelu askan wi du leen ci bàyyi benn yoon El Hadji Fallou Sylla ñu teewlu ko ci micro Thierno Daaf. tekkiwuñu dara ci dëkk bi li may wax xam naa ko bu baax parce que ñooñu. di wax ci waa Mbour di wax ni làmp yi tàkkul euh, euh, mbalit mi bari na ne ñoom ay ay ay kii lañu ay sëtu sëriñ Touba lañu que euh, am na lu ñu jàng seen maam li ñu may wax su ma ko deful darañ ma folli ab sëtu sëriñ Touba du waxee noonu ñun nag li ñu ci wax mooy lenn su fekkee ne ñoo ñoo ma ñoo ma faloon nañ ma folli parce que wax ji yëpp mooy loolu dafa am ay politiciens yi nekk seen ginnaaw di leen wax loolu di leen jox xaalis ñu dew ci rajo bi lu nekk ñu di ko wax. man waa Mbour bu ñu ma wóoluwul woon du ñu ma falaat lii ñuy wax ami lotissement yàgg nañ ko wax lotissement boo xam ne am na ñu nekk ci benn place ñaar fukki at ak juróom-benn amuñu fu ñu jëm ñooñu conseil municipal bi ñoo ne lii il faut ñu wax ci ñu waxtaan ci conseil municipal ñu neen ñooñu nañ leen fa bàyyi ci place boobu ñu nekk ñu restructuré ko defal leen ay yoon añil leen courant ak làmp waa dëkk bi yëpp ànd ci waaye ay policiers taxaw ne loolu du fi am te ñooñu dañ doon nekk fii ci maire bi di ko coog man bu ñu leen gañee ñëw nañu fii barki démb di waxtaan ak man pour ñu seet nu ñuy def ma tontu leen li ma tontu kii conseil municipal moo décidé nit ñi amuñu fu ñu dëkk balaa nga wut promenade des Mbourwa wala fu nit ñi di noppaloo da jox nit ñi fu ñu dëkk. am ñoo xam ne day ñëw ci maire bu ñu amul bu ñu ñëwee ñaan terrain ñoo leen terrain amul ñu ñëw ñaan bon gasoil ñoo leen ah tey de amul bon gasoil bu ñu génnee lu leen neex la ñuy wax man nag loolu taxul may liggéey askan wee tax may liggéey. li ñu wax ci rajo bi fekkee na mën nañ ko nañu ko def su fekkee ne ñoo ma faloon nan dañ may folli nañ ma folli waaw man ñooñu c'est loolu ñuy wax war ma yëgalu ko sax sama yaram. jërëjëf Serigne Thierno Daf ñu dem ca jànke makaan di dëkkaan bu nekk ca Goudiri ca Bundu foofule nag askan wi tëju nañu lool li ko waral mooy dafa amul benn jaaruwaay bu méngoog jamono boo xam ne dina leen may ñu mën a amal seen dem seeni seen dikk ci anam yi gën la nga xam ne it bëgg nañ ko mooy ñu indi leen ay jumtuwaay ci wàllu faju ndax nag faj meeg faju mi gën a yomb foofee ca jànke makaan Alassane Diallo Danke Mahane doon diwaan bokk ci département wu Goudiry ëmb ñaar fukki gox ak juróom mel na ñu njiit yi fàttee gannaaw ba ñu xaajee bani Israël ci atum ñaari junne juróom gox bi doon diwaan di dund lu jéggi siraat ak gox yu ñu ko booleel ndax ñàkkum jumtukaay lépp ñaari junne doomu aadama di fa yeewoo te bokk ci bundu waaskan wi daanaka dara yokkul ci seeni melokaan yoon yu bon boole ci bërëb fajukaay yu ñu dul gis ku fa wopp gën a jege laabi na ka gis waay docteur ah bu ñu amoon goudron moom mooy gënal te aussi fii président de la République ñëw na fi. yoon bi jëw na bi guuta xam na jafe-jafe bu fi nekk moo demee ba jànkee mahan à 9 fi ñu nekk nii Gouta. am na ñaari communes yu nekk sama kanam Buduk Fara de Kayan. 65 kilomètres de jànkee Kayan. 33 de Sadatou. yoon la yoo xam ne yu leen gën a métti bareetul ci Sénégal. nekk Gouta fii war nañ fi def au moins poste de santé. kilomètre la mais am na population. te aussi Dalafine c'est 33 kilomètres centre de santé bi foofu war nañ fa def poste vraiment ñu def fa benn poste mais des fois personnel dafay manqué loolu aussi laay ñaan vraiment l'état yokk ci personnel bi pour ñu mën a leen defal benn poste ñaan am na foo xam ne léegi war nañ jaaral yoon bi jànkee mahan gumbayel komooti et Tamba boobu buñ ko defee bu ñëwee ba jànkee mahan dañu dem ba dëkk boo xam ne ay 16 kilomètres mu nekk boo xolaa ko da ngay ci biir Sénégal suñu réew mi deux cent kilomètres yoo xam ne mosuñu leen goudronné loolu def may bett fii rek la am loolu nag moo tax may ñaan gouvernement bi vrai ñu programme bi nga xam ne àll bi lañ ko jagleel mu yegg si côté bi jafe-jafe yu bëri te di indi gàllankoor ci seen i dundin tax njiit yi ci kaw war cee indi saafara wàllu askan wi toogee fu sori yi Alassane Diallo Dianké Mahan rajo télévision Walfadjri yi jërëjëf Alassane Diallo ca ñooro foofee nag kuréelu politique yi di APR am na beneen kuréelu politique bu juddu ci biiram tudd Manko Sukkali saalum ka ko jiite di Matar colonel ba yëkkati nay kaddu wax ne mi ngi artu ñi nga xam ne nag dañuy faral di jël kaddu yu ñagas ak ay tëkku di jëmale ci moom ba mu ca te wax na ne tekki na ndomba tànkam ci kuréelu politique gi di APR ñu teewlu ko ci micro Al Assane Ba. te ñooro dañoo seetlu ne responsable politique yi fi nekk ñi nga xam ne Macky Sall jox na leen fi ndomba tànk nekk ci biir département doo leen dégg ñuy yëngatul lu mooy bu manifestation amee ñu ne président moo fi ñëw wala ñu ne campagne yi jege ñu ne nag lii ñun dana dëñ dañ ci génn te dina fi dëñ gisuñu woon benn suñu bopp ci loolu parce que ñooñu ñi nekkaloon liggéeyuñu woon nous qui sommes des responsables de l'antichambre comme on nous appelle som sommes dans l'antichambre ñun ñu ñuy wooyee responsable yu ndaw yi wala yu topp ci ginnaaw ñoo ëpp gëdd sax responsable yu mag yu nekk fii ci département bu Nioro looloo tax ñu génn foofu taxawal sunu mouvement coalition Benno Bokk Yaakaar mënatuñu ci ñoom dara liggéey nañu ak ñoom waaye gis nañu daal ñoom yëngatuwuñ moo yokk a tax ñu génn ngir euh, mën a liggéey ak sunu mouvement bi. Nous avons senti que ça ne bougeait pas. C'est ce a jërëjëf Al assan Ba ca Djilor foofee Khalifa Sall amaloon fa tukkib demeeku ba mu fa eggee nag jëmale yëkkati ay kàddu jëmale ci ñi nga xam ne nii dañoo mànkoo bëgg a jël seen kuréelu politique googule daal di koy jaay tayle ko mu wax ne nag jot na ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréelu googu googule jël seeni matuwaay ngir nag seen kuréelu politique googu mën a des ci seen i yoxo Khalifa Sall ñu teewlu ko ci micro Al Assane Ba. fii parti bi toll dafa mel ni tey ñu ngi ci 1948. parce que li taxoon sengoor créé parteem li taxoon sengoor dugg ci politique lu tax sengoor demoon ci nit ñi moo fi mel ni moo jot te la mu liggéeyoon ñu bëgg ko naax saayal sengoor créé wul parti buy toppe soorewul parte buy seey soorewul parti bu dul bokk di wuti di dem xool wax nit ñi jeem rek nit ñi loolu moo tax ñu ñëw fii bisu màggal la ak ngërëm ak sant ñun ñëpp dañu war sant sengoor jotaat na képp kuy socialiste nga jóg bañ ñu seyal suñu parti ñu nasaxal ko ñu jaay ko di ko def parti buy toppe ñun ñuy ay socialiste pur di doomu socialiste li nga xam ni moom la ñuy dox di ko wax mooy naan dañu bëgg suñu parti rester fidèle ci li taxoon ñu sooke ko parce que nag li ñu fàttali nit ñi mooy démocratie day am wuute day am juwaatloo cest à damay gise nii kii jëse nii ñu bàyyi ku nekk wax sa wax propose citoyens yi proposer décider donc li nga xam ne moom la parti bi dund nii ma ni loolu kenn mënu ko rey li ñuy dox nii kenn mënu ko rey du Khalifa Sall je le porte pas nous sommes c'est un état d'esprit c'est une conscience collective c'est une ambition partagée par des centaines et des milliers de socialistes et de citoyens ñu tëj Bamba ñu tëj Barthélemy ñu tëj xalifa Sall dana amaat fukki Bamba fukki Barthélemy fukki Khalifa Sall yoo xam ne daañu continuer combat boobu gëm bëgg ñiy jéem bañ sonnal seen bopp taal bi tàkk na jeeg jërëjëf Al Assane ba ziara ba ñuy wàcc ca ba ca Bambilor ay fan rek ci des bañu koy wàcc nag kii di xalif bu Bambilor yëkkati na ay kaddu daal di eggee kilifa yi la nga xam ne nii moo di jafe-jafey Bambilor mu bokk ci ñàkkum ndox ñàkku courant waaye ay jarukaay yu méngoo ak jamono Najib Sagnon ñaar fukk ak juróomeel ziara bu Bambilor nag fu mu nekk nag am na bés boo xam ne dañ ko tànn ñu ngi koy def nag si CLD boo xam ne ni dañ ko def kër sëriñ bi xalifa général nag mu Thierno Amadou moom ne nag nee na le 4 bi la def ziara bi moom sax ñëw na si jafe-jafe yu amoon daaw pour moom nag daaw dafa bëriwul ay jafe-jafe nguur gi jot na si def dara waaye ñu bëri loo xam ne dañ ko def teelul ñëw mun nag lu mu laaj moo di ren ñu teel leen jàppale ngir mbir bi gën a dox ndaxte ñu bëree bëree ñoo ñëw fekkee ziara bi. xam nga ziara bu mel nii moom li muy li muy drainer ci monde dafa bëri trop donc euh, ku wax nit nag wax ne war nañu lekk war nañu naan war nañu sangu war nañu utiliser ndox ak leneen ak leneen santé bi war na mot sëkk. Euh, euh, naka la tudd sécurité bi war na mat ak yeneen ak yeneen yooyu nag am na yoo xamante ne nii daaw. Euh, am na lu bëri euh, ñëwul yegsiwul euh, ci waxtu bi mu war a yegsi donc loolu tam ñu ngi ñaan ñaax ñi ko yor dëgg-dëgg ñu ngi ñaax aussi ah, naka tudd commune bi aussi ñoom tamit donc ñu ngi leen di ñaax ñoom tamit seen taxawaay incha allah doon na fës mais ren aussi ñu ngi leen di ñaax moo gën a fës bu baax a baax mais nañu xam ne yëf yi dafa yokk ñoom tamit nañu yokk bu baax a baax autorité nag yoo xam ne dañu fa jël kàddu lu mel ne sous préfet bi ñoom ne nee nañu dañuy def lépp lu ñu mën a jottali bi ñoom nee nañu def loo xam ne mën nañu ko pour que ziare bi gën gën a dox ziara bu Bambilor bi nag nekk na événement religieux boo xam ne ni mu gën a rëy fii si département bi ñu bëree bëree ñoo jógee bitim réew wala fii si Afrique ñoo fekkee mbir mi fii si Rufisque nay sañoo ay télévision Afrique bàkk boobu lay daanu tàbbanu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore rek ca kan ba Sénégal noppi ca waaye nag bàyyi fa coow li ko waral mooy euh, ki nga xam ne nii moo di jëwriñ ji yoroo tàggat yaram bi fii ci biir réew mi fa mu daloon ak ñamu àndaloon euh, di ab daluwaay di hôtel ba mu fa jógee nag euh, dañoo wax ne fayul borom oto ba borom hôtel ba waaye nag dana mott dem ak ay kopparam ki nga xam ne nii moo di Alassane Diop di doomi réew mi boo xam ne ma nga dëkk foofee ca Libreville bi doxoon ci diggante bi waxtaan na ci ak Cheikh Tidiane Gomis ñu ànd man maa fay lépp loo xamante ne alors que waroon na leen dañuy ñëw fii ñu ne yoruñu xaalis alors que daaj bi new fii man may génn xaalis may fay lépp man may fay léegi fay naa ba nga xamante ne nag léegi génn jot na alors que daaj bi di ñu dawloo sama taaw moo la mag kenn ma dawloo man 60 million 30 million bu sama problème bu ma tëddee à cause de ça ma nelaw man leneen lay xalaat lu dul 30 millions wala 60 millions c'est pas mon problème noonu laay jëlee bu comme mënuñ fay ndaw si téye ko ci hôtel bi nekk doo dem di ko saaga wax ko lu ne mun a xuum toog ma xam ne gàcce ñëw na ma jël sama chéquier fay ndaw si million 31 millions 282 man maa def chèque fay ndaw si da seg Sénégal moom mu daal di dem mun ne ma jox ma sa numéro compte dinaa la ci ber sa xaalis bi ma nag sama numéro compte su ma la ko joxee nga wer sama sa xaalis bi est ce que xam nga sama coordonnée bancaire yaa ngi wax noonu te bëgg a dem xaaral ma jox la ko ma jox ko coordonnée bancaire yi jox ko sama mu ne ko jox ko sama numéro téléphone yëpp ak sama adresse mu daal di dem ndaw si nee dem si téléphone oon aéroport pour que ndaw si waa ji du génne bu fayul chèque boobu ma jox ndaw si moo tax ba fi mu nekk nii enlevé nañu kii boobu blocage boobu ba mën na génn mën na voyager jërëjëf Serigne Cheikh Tidiane Gomis ñi euh, nga xam ne nag ñoom ñoo toggee tàggat yaram ci biir réew mi di jëwriñ ji ak ñam nga xam ne ni moom la nekkal ca màkkaan ba yëkkati nañ seen kàddu ñoom itam tontu ki nga xam ne ni mu wax ci seen tur di Ahmed Tidiane Ba la mu xam ne nag mooy euh, jëwriñ ji amul lenn loo xam ne nii yoreel na ko kenn loole nag ñàkk déggoo lekk ñu teewlu ko ci micro Cheikh Tidiane Gomis hôtel moom du hôtel boobu la li yow mooy épali hôtel Aristide Epali c'est hôtel de petit de treize chambres ñun fa lañu ñu nekkoon monsieur le ministre euh, le président El Hadj Malick Sy fay naa lépp. amul lenn loo ak jabaru général bi man xawma ko bu ñu ñëwee lijjante wu ñu ko moom hôtel bi dañu waxante woon ak benn sénégalais. bu tudd Diop bu tudd bu sant Diop fàtte naa son prénom moom la waxante woon ñoo ngi respecté lu ñu wax yëpp. def nañu sax def nañu ay ay ay ay effort de plus ay effort de plus parce que ministre ñu ne lu ngeen mën a def pour que tout se passe bien du ma dugg si détails def nañu dem def nañu même plus lu waroon def. loolu loolu vraiment euh, ça m'étonne parce que loolu loolu amul ku ñu xam xam nañu ñun dañuy gérer budget lu am importance mooy que les gens soient dans de bonnes information foo mu jógee foo mu jógee ak yooyu seulement ñu tamit on est des balaa ma lay fay dara nga lii ak lii il faut nga indi une facture qui montre que lii maa fa dëkk lii maa ko consommé ak yooyu kenn mësuñu xamal si si si loolu yàgg nañ dem si ay si ay marché ànd ak équipe nationale man ñemewuma en tant que fonctionnaire sama ministre mu ne ma defal toutes les conditions nga réglé lépp mañ ko def ñoo ngi liggéey ak waa fédération ils sont témoins de tout ça su ma mënee fay si une journée des montants élevés ay cent quinze millions pour louer ay avion wala ay dix neuf millions jógee Brazzaville ñëw ak yooyu su ma mënee fay loolu donc du ma bañ fay ay de détails xaw ma fa ngeen amee information boobu mais amul jóg ngay wax xamante nañ bu baax lu ñu waroon si moom yëpp def nañu seulement aussi su demee ba à fin paiement dafa am fu muy jaar foo nga indil ma une facture nga ne ma li ngeen def ñu xool mais à part ça amuñu benn problème am na ay détails su fekkee diw fay nag après maa lay fay maa lay defal virement comme état nu muy def ak yooyu parce que état du du du c'est pas de l'informel mais li ma lay wax généralement soo gisee nii man en tant que fonctionnaire en tant que directeur de l'administration générale et de l'équipement man nangu interview c'est parce que amuñu benn problème jërëjëf Serigne Cheikh Tidiane Gomis xibaaru tàggat yaram boobule buural xibaaru biir réew yi bu ko defee dañuy jàll ci xibaaru biti réew yi ànd cekk soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke. réew yi dañu koy dooree fële ca Côte d'Ivoire nga xam ne fukki nit rawatina juróom-ñett ci seen biir yoo xam ne ay takk der lañ dañoo waroon taxaw lépp na jëmee ko ci laayil ba ñu ubbi ci cour d'assises bu Abidjan ngir gën a xool ci yan anam la ñu faatee ñeenti doomi aadama rawatina ñaar di doomi réew France lu ni mel sax juróon na coolu rëy ci Côte d'Ivoire gannaaw ba ñu fa amalee ab crise ci élection yi nga xam ne juróon na fa coolu rëy ci atum 2011 faat boobu ñu faatoon ñeenti doomi aadama yooyu ci hôtel Novotel bu Abidjan fi mu toll nii procès bi waroon nañ ko ko amal niki tey ci talaata ji waaye nag dañu koo dàq ba fukki fan ak benn ci weeru février atum 2017 bi ñu nekk. fële ca États-Unis jëwriñ bu bees ba ñu fa tabb mu war a lijjanti wàllu yoon donte ci lu neggandiku rek lay doon moom nag xamle na ni lépp loo xam ne jóge na ci décret bi nga xam ne Donald Trump xaatim na ko dina ko jëfee soxna soo su di Dana Boent war a toogu ci fa nga xamante ne fa la Sally Yates nekkoon kooke di ab soxna soo xam ne doon na liggéey ak Barack Obama waaye nag àndul benn yoon ak ni xam ne noonu la Donald Trump doxalee waral sax mu daal di tekki ndomboy tànkam jébbal ko lépp luy leng yu ko joxoon ci wàllu yoon foofu la ca états ko fa nag moom yëgle na ne lépp lu jëm ci boobu le décret doonte neexul ñu bëri ci askanu États-Unis dina ko jafee ba mu mat sëkk ci fàttaliku nag ba ñu ko defee ba léegi boobu le décret États-Unis am na ñu bëri ñoo xam ne jur na métti ci xol ci seen i ñooñ rawatina ñi nga xam ne ànd ñu benn yoon ci juróom-ñaari dëkk yi ñu ne kenn ci ku fa baaxoo dootoo tegat ci tànk ci États-Unis ñu jeexalee xibaari bitim réew yi ak Canada foofee nga xam ni am na ab cong bu ñu fa amaloon ci dibéer bi ñu génn loolee ci ab jàkka joo xam ne dañ fa doon jaamu yàlla ci ay nekkoon fa lu toll ci juróom benni doomi aadama ñàkk ci seen i bakkan ki nga xam ne mooy njiiti jëwriñ yi di Justin Trudeau moom nag ak yenn ci ay responsable yu baaxoo ca Québec ak ñu bëri ñoo xam ne ci askan wala ñu bokk démb ci guddi donte sedd bi taroon na lool ca dëkk ba wàcc nañ lépp nag ngir ñaanal waaye itam wane seen métit ci li nga xam ne jot na faa am mu mel ni daal la nga xam ni am na ca Canada doon na lu yees ndaxte lu jëm ci attentat yi wala li ñuy jël di ko ngàll ci ndoor di jullit yi musu leen dal bi la yoon nag dal na leen wala nag ñu bëri jàpp ni seen ubbeeku wala sax ñi nga xam ni noonu la seen njiiti jëwriñ yi di Justin Trudeau di doxal jëmale ko ci jullit yi yaatuwaay itam sawar lool ci seen mbir moo ko ko yóbbee jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke xibaaru biti réew yooyu mooy bural xibaaru maraxi ci kàllaama yi kocc ci leeru jamono juróom-ñetti waxtu ak jàmm xibaar yi dëddeel si ci kàllaama yi français ak soxna Ramatoulaye Ba Dieng canta ngërëb ñelit bu baax Serigne Cheikh Tidiane Diop mi fare woon ci xarale gi moom soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke ci jàppandal gi di réalisation bi yéen itam canta ngërëb ñeel leen bu baax ci teewlu bi yàlla buur bi ñu boole moom ak lépp lu ñu moom di moom te kenn du moom teeloon ñu kaw ba kaw daanul ñu defal jàmmi xol xel yaram booleeg làq ñu fu yàq yëgul jërë ngeen jëf